nga dafa am dafa dafa am loo xamante ni dañ koy wax moi je je fais focus sur l' affaire Serigne Saliou et journaliste c' est quelqu'un qui est à l' assemblée nationale un député que j'entends parler qui vote nos textes qui propose des lois waaw wala déet au niveau de l' assemblée nationale pour les proposer et je pense que devait mener son enquête pour savoir lan la code de la presse wax balaa muy jël position par rapport à Serigne Saliou nee la dem fii je n'ose pas taxaw ne Serigne Saliou Gueye n'est pas journaliste wala dafa usurper fonction je n'ose pas il vient de nous donner une information que je ne savais pas je ma enseignant musuma ko xalaat pour man ci presse laa ko xamee musuma ko xalaat c'est une nouvelle information qu'il m'a donnée maintenant est-ce que Serigne Saliou Gueye dans l'exercice de ses fonctions détenir na carte presse parce que aussi il est honorable député il est honorable député dañoo am insigne bu leen di identifier ñoom en tant que honorable député waaw wala déet mënoo taxaw rek ne je suis honorable député dafa am insigne bañ leen di tabb député dañ leen tegal écharpe yëkkati insigne jox leen pour sénégale yi xam ni ce sont des députés de l'Assemblée nationale donc am na identification maintenant dans l'organisation de la presse mon très cher journalistes yi dañoo doon toog ne seen métier bi il faut ñu encadrer ko faut ñu organiser ko fexe ba am ay ñoom ñoo ko demandé ay carte presse pour permettre nit ñi identifier les journalistes les gens qui sont journalistes et qui ne le pas parce que ñi ngi bëgg a dee ak nit ñiy dugg seen biir métier bi di ci def naka su noonu di tuddee seen bopp journaliste te nekkuñu ko parce que am nañ sit euh, YouTube wala am nañ leneen ak leneen. Mm. pour dire vrai yor yor yor gilet presse sol ko génn ne signifie pas que tu es de la presse. parce que pour am carte de la presse boobu dafay laaj ay expérience wala ay diplôme est-ce que code de la presse waxul pour être journaliste il faut détenir une carte de la presse est-ce que code bi waxu ko. pour être reconnu comme journaliste. il faut être pour être reconnu il faut détenir la carte de la presse su nekkee code de la presse moo ko wax ku détenirul carte de la presse fayir nga. fayir nga je l'ai dit a Maïmouna keroog ba mu wàccee demal nga wuti carte presse soog parce que amul tooñ nga. nous devons être à cheval de nos textes et lois te yow yaay voté loi yi biir assemblée nationale donc war da nga waroon taxawee laaj loi bi xam lu mu wax lan la donc sur cette affaire foofu lay taxawee parce que loolu mooy dëgg nee naa la dama taxaw wax ni Serigne Saliou du journaliste sañu ma ko. mais am na am na am na non non déggoo lu la est-ce que su nekkee enquêteur bi dafa tegu ci. ci ci ci texte bi lu mu wax par exemple pour reconnaître un journaliste il faut détenir une carte de presse parce que conférence de presse yi ñuy organiser mais attends journaliste bi dañ koy laaj carte de presse am yi am na ci conférence de presse yi ngay dugg dañ lay laaj sa carte de presse xool ndax journaliste nga ou parce que aussi avec la prévarication des sites et qui existent partout dans le monde soo demee ci conférence de presse yi des fois doo leen i pour am image yu baax soo gisee suñ tribunal jeexee sax pour ñu joxe seen micro normalement. duñ ko am parce que lu ñuy wax cette racaille là est là pourquoi parce que dañuy liggéey ci YouTube bi pour am ay vues duñ ko organiser sëñ bi ñoom ñoo ne ñu organiser ko de mais pour organiser ko nañ leen jox ay carte de presse pour mën leen identifier parce que suñ leen mënee identifier kenn dootul taxaw nit ki wan la sama carte de presse nga ne ko non bokkoo doo journal sañoo ko. parce que su boobaa yaa ngi exercer métier bi parce que vous détenez votre carte de presse au niveau du système éducatif c'est comme ça lancé nañ marché bi nit ñi am na ay enseignants yoo xamante ni détenir nañ seen carte jàngalekat pour identifier wu parce que carte boobu moo lay protéger moo lay sécuriser dans tout ce que vous faites c'est important doyen mi ko doon wax léegi de soo détenir sa carte de soo demee Mauritanie am fa problème sa carte de presse ngay wone Sénégal ñëw c'est ça la réalité